xalaxakum min tiini summa xada ajalan wa ajalun musamma indahu summa antum tamtarun wa huwa allahu fi samawati wa fi ardi yalamu sirrakum wa jahrakum wa yalamu ma taksibun mbokki jullit yi mbokki talibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu nuyu jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyu taalibe ak mbokkum taalibeem di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom yàkkal ko fii yokku kattanam ba mottali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal Xaadim Rasul te ànd ko mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa yépp mbooleem kilifa diine yi ak jullit yi ak mbooleem taalibe yi di siyaare bu baax mboolem ahlu jataay bu tedd bii di ci jiital sunu sang yu tedd yu mag yi nga xam ne ñoo ngi ci barab bi di waa sëriñ Serigne Mor Awa buñ ci tuddee Serigne Abdul Xadir Njaay di ko siyaare bu baax ak sëñ Maam Mbay noo koy siyaare bu baax di ko ñaanal di ñaanal seen xalifa bu tedd ba sëriñ Cheikh Kunta sunu borom dëgëral ko te mottali ko ab yéeneem noonu la ñuy siyaare bu baax mboo mbooleen jàngkatu xaside yi bu nu ci tuddee rek sëriñ Moussa Ndiaye ak Kassa mi nga xam ne moo woote bisub sant bi nga xam ne ci sant Serigne Touba di ci delloo njukkeel Serigne Mor Awa di ci sargal jàmbaari Serigne Touba yi Serigne Babacar Ndiaye Thiergane Serigne Aliou Diouf Lambaye ak Serigne Omar Mané di loo xam ne lu war la jamono bu nekk ñoo ngi ziyaare bokk yëpp xëy na bu ma bëgg na lim ñi ma fi xam mën naa fee bañ a jóg ndax kenn ku nekk am na lu nu séq loo xam ne suñ diggante la kon bu ñu tuddee sëñ Moussa mi nga xam ne moo tax ñëpp jóg dana yóbbaale ñépp bàyyiwuñu kenn yaakaar naa ku sam xel njortu rek moom moo jiitu ci nuyoo bi ak siyaar bi demee li mbokk yi waxoon na nu bu dikkee nu waxtaanee jëmm ji di sëriñ Mor Awa Ndiaye bokkoon ci jàmbaar yi Serigne Touba yi mag ñu baax ñi nga xam ne danoo jaayante woon ak Cheikh Ahmadou Bamba topp ci ginnaawam di sàkku ci moom ngërëmul yàlla aku àgg ci borom bi subhanahu wa taala ku ci mel ni sëñ Mor Awa xam ngeen ne loolu waxtu wu nekk di ko fàttalee dafay war dafay jaadu ngir mu nekk ab soññee waaye nekk ak nafaraat ay bind yoo xam ne danañ ci mën a jànge sëriñ bi ndax sëriñ Tuuba xiiwalu yàlla la ngëneel la lees tey jariñoo nag loolu mooy yoon wi nga xam ne ci la mag ñu jaare ñu baax ñi jaaroon ku ci mel ni sëñ Mor Awa Ndiaye te lu baax lu mu baax baax te xamuloo noo koy jariñoo man nga caa bañ a jariñ wala boo ca dee jariñu it jafe kon li nu tax jariñu loolu mooy li mag ñi defoon muy jaayante ak Cheikh Ahmadou Bamba topp ci ginnaawam di jëfante ak moom ci li leen digal di bàyyi li leen tere xam ngeen ne loolu day lu sëriñ bi ñëw ngir yeesalaat ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la sunu borom def mu nekk royteef ci jullit ñi walakum fi rasulillahi uswatun xasana yonent bi alayhi salaam mooy seen royteef yonent boobu alayhi salaatu wasalaam nag am na ñu ko fi jiitu woon andi ay diine andi ay téere sunu borom joxoon leen ndigalul nu wote waaye xam ngeen ni ku ci masa wote ku nekk diine ja nga yore di ko wote woo dafa am lu muy dàkkantaloo bu dee yahud yi seenu tur mi ngi bàyyeekoo ci yahud mi nga xam ne mooy taw yonent yàlla Yanqooba boo toppee nasaara noonu la mel lenn lu ci nekk rek am na lu muy dàkkantaloo bi yonte bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee nag sunu boroom daf koo jox li gën muy lislaam lislaam jooju jàmm joo xam ne dañ koo généraliser maanaam jooyewul aw ci genn côté awul gauche bàyyi droite awul droite bàyyi gauche loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala ba mu ko yónni wa ma arzalnaaka illa kaafatan linnaas kon yàlla yëbalut alayhi salaatu wasalaam ci benn barab waaye dana ko rek dama laa yónni waaye ci ñëpp laa la yónni mu nekk nag mu bashiran wa nashira nekk aj bégg kon ci képp koo xam ne jaar na ci jubub diine waaye nekk itam aji xuppaa kon ci képp koo xam ne wàcc nga yoon wi l'islam jooju moo tax suñu borom jël diine yëpp na saxal ko ci biir l'islam wax ne inna diinu indallahi islaamu kon day mel ni diine joo mën a jàpp judul diine l'islam jooja dina du wér yonte bi alayhi salaatu wasalaam bi mu fi bàyyeekoo it loolu la batale ñu jottali ko li ko borom bi subhanahu wa taala yónni woon te fekk lépp mat na ndax xam ngeen ni ak ji mujj aj moom alayhi salaatu wasalaam dégg na ci borom bi subhanahu wa taala al yawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislaamu diin kon diina lislaam mat na mooy diine ji yàlla jàpp def ko muy diineem mooy diine ji nga xam ne moom la yàlla gërëm bi fi yonent bi alayhi salaam bàyyee ko it mbooleem ñi ko wutu woon ñëpp ci tool bii la ñu nekk di ko taxawu di ko bay di ko yeesal loolu mosu fi jóg ginnaaw alayhi salaatu wasalaam loolu moo waral li ñu tudde mazahib yi di imaamu maliki safii imaamu xanafi ahmad ibnu hanbal loolu moo waral li ñu tudde aturuxu sufiya di ay yoon yu bari waaye benn yoon bu ci nekk rek mën naa womet jaam bi jëmee ko ci borom bi subhanahu wa taala kon day mel ni adduna yàgg naa nekk jamono ay waxtu wa tilkal ayyaam nudawwiruha bayna naas yàlla day wëlbati adduna tey mu wëlbati baas bi bu ëllëgee mu wëlbati baas bi noonu la àdduna demee waaye xam ngeen ne Sayxul Xadim nag dafa doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci zahir doon ko ci baatin lu tax xam ngeen ne bi mu ñëwee te borom bi subhanahu wa taala wax ne wa man yabtaxi xayra lislaama diinan falan yuqbal minhu wa huwa fil axirati minal xaasiriin moom ba mu jëlee dafa jël ab goppam samp ko ci biir tool boobu di tool bu islaam waaye xam ngeen ne fekkoon na tool bi gàncax gi ak ñax mi jaxasoo na bari na ba tàqale ko jafe na loolu la sëriñ Moussa Ka di wax ne la yoon nan ba ruujoon góor ña booyal ko yaa ko bay bu lislaam doonoon ab tool ñu jëwriñ ko sëriñ Touba moo tax ba mu dikkee moom sëriñ Touba lam annoncé mooy lil Moustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahu alxarra wa inni ahmadu nasafatahu kulli min allahwi taharat wa sunnatahu inshaa rabbi ubayyidu diinun siwa islaamihi laa yuhmadu inda illahi wa bihi nujaddidu woote gi mu woote li nag moom Sëñ Tuubaa moo tax mag ñëpp daw wut si sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa a wax ni gaa yi fi jiitu woon luñ am am naa ko ba noppi am luñ amul li ma am te amuñu ko mooy mag ñii ko mel ni sëñ Mor Awa Ndiaye moo tax ba waxtaanee sëñ Mor Awa Ndiaye waxtaane nga mbooleem magi sëñ Tuubaa yëpp ba waxtaanee sëñ Mor Awa Ndiaye waxtaane nga sëñ Babacar Ndiaye Thiergane waxtaane nga sëriñ Aliou Diouf Lambaye waxtaane nga sëriñ Mor Mané Mbaye boo waxtaanee sëñ Moraw Ndiaye waxtaane nga sëñ Ahmadou Thiaw Paxa Cheikh Ibrahima Sare Ndiaye ma Massamba Diop Sam ba ci sëriñ Daaru Asan Ndiaye ndax ñoom ñëpp sëñ Tuubaa lañu sëñ Tuubaa lañu sëñ Tuubaa leen duj sëñ Tuubaa leen def lañu doon te yonte bi alayhi salaam dafa waxoon ne ashaabi kan nujum bi ayyihim iqtadaytum iqtadaytum sama saxaaba yi dañoo mel ni ay biddiw kenn koo ci roy rek jub waa kër sëñ Tuubaa yi noonu la moo tax sëñ aw Ndiaye mu ngi gën a jamono ci atum 1863 miladiya war a dëppoog 1280 atum junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ginnaaw gàddaa ak yonte bi alayhi salaatu wasalaam sunu boroom tànnal ko ñaari waajur yu sell yu baax yu nu xamoon ci diine ak lislaam muy soxna awakan fay ak sëriñ Mamadou Assane Ndir Ndiaye mu ngi feeñee jamono ci dëkk ba ñuy wax mbari kër gu mag sëriñ Mor aw turam moo di Mor Hawa ñii daan ko wax sëñ Maxtaar Njaay ku tedd ki Cheikhul Xadim tuddi woon ko Mouhamadou Hawa la ko sëñ Tuubaa daan woowee bi mu tolloo ci waxtoo doon jàng waa waajuramu góor wa wu tedd wa sëriñ Madou Assane Ndiir Njaay moo ko jël yóbbu ko ci dëkk bu ñuy wax Kër Samba Gay ci benn jàngalekatu alxuraan bu mag bu fa nekkoon bu ñuy wax sëriñ Mor Samba Gay di turandoom ñu tudde ko ko mu jàngal ko alxuraanul karim ci njàngin wu gaaw nag ndax ku neexoon am xel la moo tax ku teeloon na moo ko alxuraan la moom sëñ Mor Xawa waaye njàngin wu rafet mu wattu alxuraan it xesdan wa tilawatan waaye jàng fa yenn fan xam-xam yi waaye xam ngeen ne sëñ Mor jamono yi muy nekk dongab daara nekk ci daara ji wax na ne ku sunu borom teeloon a jox ab cër la ci baatin ndax léeg-léegi daana ànd ak gone yi dem ci àll ba jàpp jinax rey ko dagg ko ñetti cër dajalewaat ko daal di dóor jinax ji mu daal di dem bu ñu dikkee wax ko ab sëriñam daf koy tere loolu taxoon na ba sëñ Mor bàyyi ko waaye it yëmut ci loolu sëñ moor daana ànd ak gone yi dem ci tool yi wax leen na bi sàngam day nangam ak nangam dana am te loola saa bu ñu àggee ci loola dana danañu xam ne lii sëñ Mor Xawa Njaay waxoon na leen ko te booba mi ngi ci daara ji di jàng wàccagul alxuraan waaye xam ngeen kon ku teel a am ak jagle la diggam ak boroom subhanahu wa taala sëriñam it bëggoon ko lool ngir ne yàlla def na ci moom xel mu neex waaye ñu tudde ko ko waaye xam ngeen ne bi ko waa waajuram tuddee diir bu gàtt dafa def waa juróom wàcc ab liggéey ci zahir waaye bi mu wàññeekuwaatee li sëriñam defoon ci moom ci xam-xam ak jàng ak jàngale tax na mu am ak wuute moom Serigne moor Anta moom Serigne moor Xawa Ndiaye ginnaaw ba nga xamee ne nekk na ci dëkk booba di kër Samba di jàng alxuraan te Serigne Mor it sunu borom dogal mu bokkoon ci ñi ëpp xam-xam ci réew mi ndax moom ak Serigne Mbacke Anta Sali bokkoon nañu jenn daala jum jànge ginnaaw ba mu ko fa jàngalee ba wàcce ko dafa dajale penc mépp ba ndaje mu ne leen Serigne Mor mii day dama koy wàccee te di ko gërëm. waaye dama bëgg ngeen seere ko maa ngi koy ñaanal askan wi mu bokk di askanu mbuuban yàlla na leen tiim ni ab jant tiime suuf te kenn ku nekk xam ne ne ñaan gi am na ndax sëñ Mor Awa mbooleem ñi mu bokkal ñëpp moom képp moo ci jox Cheikhul Khadim loxo ginnaaw bi mu nekkee ci dëkk boobu bu jóge fa la sëriñam defoon ci moom li ma la wax léegi ci xam-xam ak jàng ak jàngale ak dund tawxiid ak tasawuf loolu taxoon na bi mu delloowaatee mbër yi mu am ak wuute ak ay mbokki boppam ndax façon dund bi mu doon dund ñoom xamuñu ko woon ndax xam ngeen ne ceddoo dafa xawoon a nekk biir mbëri ndax ma jot naa nekk faralambaay fanweeri at ak ñett laataa muy tuub te moom moo sanc dëkk bii di mbëri loolu moo tax ginnaaw loolu it sëriñ Mor wëlbatukuwaat na dem ci benn boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax na Salif Sow nekkoon ab tukkulóor dëkkoon ci dëkk mu ñuy wax mbëri mu jàngal ko yenn fànni xam-xam yu bari ba mbooleem xam-xam boo xam ne nekkoon na ca moom Serigne Mor Awa Ndiaye peeg na ko bi loolu amee nag ca la laxasaayu nag ngir dem Pire. bi mu demee Pire liy cosaan dama Piram mooy fa la waajuram jële woon lii di wirdu Tijaaniya mu dal di dem jàng fa fa soo fànni xam-xam yu bari li ñuy fiq tasawuf jàng fa tafsirul Quran nga xam ne. dem na ba am fa ay lijaas ñu def ko fa mu xaddam bu mag mu tàmbalee mën a joxe wirdu tijaaniya daal di wëññeekuwaat dem bëri nag sanc benn sawiya di jàngale alxuraan moom sëñ Mor Awa Ndiaye waaye nag di joxe wirdu tijaaniya bokk na ci ñi jox wirdu wi sëriñ Babacar Fall sëriñ Jibril Sène sëriñ Abdoulahi Sarr ak sëriñ Mafal njonge wa xayrihim ak ñeneen ñu dul ñooñu sëriñ Mor ànd ak ñoom di dund ak ñoom ci tawxiit di jaamu yàlla jaamu yàlla bu sell di wéetal borom bi subhanahu wa taala moom sëñ Mor waaye di jàng ak di jàngale di tëdd guddi di nafil la waaye nag daan tudd yàlla ci kaw. tudd gim daan tudd yàlla moom sëñ Mor Awa Ndiaye ci kaw loolu demoon na ba tax ñenn ci ay magam daan nañu bàyyi ba guddi ñu ñëw di ko xoqatal buñ ko xoqatalee bu bët setee ñu koy wonaan koon Mor xanaa xamoo ne yëkkate sa kàddu guddi baaxul loolu taxoon na. ñu ko daan xooxatal ngir tudd gi nga xam ne daan na ko tudd boromam subhanahu wa taala sëriñ Mor yàlla dogal na mu nekkoon ko xam ne ku daan jëflanteeg nit yi àdduna yi ci xam-xam ni ko borom xam-xam yëpp daan defee ndax boo xoolee ku mel ni sëriñ Mbacke Anta Sëli nekkoon na ak Lat Joor ku ñuy wax Xaadima Jaxate Kala moom it nekkoon na ak Lat sëriñ Mor it loolu taxoon na mu daan dund ak nit yi àdduna yi loolu moo tax mu demoon ci dëkk bu ñuy wax Tuul di Touba Tuul ñu xam tey ci buur ba nga xam ne moo fa nekkoon ngir waxtaan ak moom yàlla dogal na déggoowunu mu wàññeeku waat ñëw mbëri bi mu wàññeekoo ca la laxasaayu waat ngir dem ngoy ci beneen buur boo xam ne moo nekk ci dëkk booba di Saloum ba mu demee waxtaan ak moom nag yàlla dogal ñu déggoo waaye mbokk yi xam ngeen ne foofu la Sëñ Tuubaa commencé wane ay mbiram ndax Sëñ Moor bi mu yàlla dogalee mu juboo ak buur boobu guddi ga mu war a tàmbul liggéey bi ba mu demee ba téye kurusam war a gi kurus gi daal di wadd mu tudd yàlla laa ilaha illallah muhammadan rasulillah am kàddu bu ne ko moor jógal fii du sa barab moor jógal dem wuy ji ahmadou bamba jógal dem joxe ahmadou bamba sa bopp jógal dem joxe ahmadou bamba sa bopp sëriñ moor daal di laxasaayu foofu wàññeekuwaat ñëw mbëri daal di toog tàmmuli di xelaat loolu nag ndax lii ma la wax nii loolu mooy sababu baatin bi waaye noonu la amee sababu zahir xam nga sababu zahir bi mooy bi mu tàmbalee di xalaat loolu di dund loolu fu mu toog di ko jeneer benn bi Cheikh Ibrahima Fall Bab Mouridine ànd ak ku ñuy wax sëñ Abdoulahi Diaw jógee Touba Toul gii ma la waxoon léegi nii daal di jaar mbëri bi ñu fa jaaree coono jàpp leen ak tàngoor ba nga xam ne xaw nañoo sonn ñu bëgg fu nu dalloo bi leen waa dëkk bi gisee dañoo wax ne kii de xanaa sëñ Mor Awa Ndiaye rek moo ko mën a dalal ñu yóbbu ko kër sëñ Mor Awa sëñ Mor Awa daal leen dalal waxtaan ak ñoom ci li ñu bokk muy tawxiid ak fiq tasawuf ak li nga xam ne moom lañu bokk ci diine bi ñu waxtaanee ba ngoon jot sëñ Mor di leen gunge bi ñu leen di gunge ba egg ci genn Dakar boo demee mbëri ni nga la woon Dakar gi nga xam ne foofu la sëñ Abdoulahi Diaw ak Cheikh Ibrahima Fall taxawoon bi ñuy tàggatoo sëñ Mor Awa jël loxoom jox ko seex Ibrahima Fall daal di koy rocci jëlaat loxoom jox ko sëñ Abdoulahi Diaw mu ne nikk loxoom ne ko ndax gëm nga yàlla mu ne ko waaw moo tax di jàng alquran mu ne ko ndax gëm nga yonte bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko waaw mu ne ko bàyyil lii dem joxe Ahmadou Bamba sa bopp bàyyil lii te dem joxe Ahmadou Bamba sa bopp kàddu googu di ñaar ginnaaw am na lu ko waxoon te xamu ko woon sëñ Abdoulahi Dia waxaat ko ko waaye li gën a yéeme mooy bi sëñ Abdoulahi Dia waxee lii laataa loo xam ne tàqali ko Seex Ibrahima Fall da koo fil daan ko kii fa mu ànd ak Serigne Touba du fii kii fa mu ànd ak Serigne Touba fii Cheikh Ibrahima Fall moo ko ko wax kon sëñ Mor Awa Ndiaye fa mu ànd ak Serigne Touba fu yàgg la kon loolu mën nga cee dégg la Serigne Moussa Ka doon wax ci Cheikh Ibrahima Fall mas nay xibaar ak bu jébbuloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe loolu moo tax Serigne Mor Awa nekk ci loolu guddi ak bëccëg mu di ko xelaat mel ni day dem bay jeneer jëmmi sëñ Touba ñu ko wax ni mu déggee ne sëñ noonu lay jaamoo yàlla ni mu déggee ne noonu la mel digganteem ak boromam. dem bay jeneer Cheikh Ahmadou Bamba waaye benn bis nag mu laxasaayu nag ngir dem fekk sëñ Tuubaa waaye mbokk yi xam ne sëñ Moor dafa nuroo ak sëñ Tuubaa ay mbir li ñu ay mbir mooy xam ngeen ne sëñ Tuubaa keroog bi mu waree génn Mbakke Bari Jolof ca inni xarajtu yawmu sabti rabia safar ama jaysasin min daarilati banaytuha fi ardi jolof baadama tatni barawta amiru ndar allaci jara bayni wa baynahum ma jara min alqadar la mu njëkk a def mooy dafa bàyyi ay ay soxnaam moom sëñ Tuubaa bàyyi ay njabootam ca xusuuri xallat wal ahlu ani tafarraqat li ma dexi lësi an xu ma dixu xasiiru sëñ Mor Awa Ndiaye moom tax bi mu laxasaayoo ngir dem fekk sëñ Tuubaa dafa njëkk a bàyyi soxnaam yeewee mu dellu këram mu daal di woo magam ju mbokkal ndey ak baay daal di koy may lépp loo xam ne sëñ moor moo ko moomee te mënu ko yóbbaale ngir ne bu demee fekk sëñ Tuubaa dafay sax di liggéeyal sëriñ Tuubaa ba faatu loolu moo tax bisub daaw bi mu départ dem Touba ci kër gu ñuy wax Daaru Xudus fekk fa Cheikh Ahmadou Bamba ba mu demee fekk mag ñëpp ci àll bi ñuy liggéey ndax dafa tolloog am 1888 daa tombeek bi ñuy sanc Touba di sos di di di gor garab mu fekk fa benn bëkk néeg bu ñuy wax sëñ ma fa Samba Fall Sanjara moom la fa Cheikh Ibrahima Fall fekk moom la fa sëñ Mor Awa Ndiaye fekk bi mu ko fekkee daal di koy jox loxo sëñ ma Samba Fall Sanjara dafa mel ni ku xejj ay xef ci sëñ Mor Awa mel ni ku ko mere daan ne ko moor mu ne ko la bayk mu ne ko bu Sëñ Tuubaa doon aw ñam day Kajoor ak Bawal ak Siin Saalum ak Bawal jeexal nañ ko yéen ngeen nekk lambay gi rek mun leen wuy si mu ne ko loolu moo moo ma taxoon a jóg damaa dikkul ngir jaayanteeg Sëñ Tuubaa du ma yem ci jaayanteeg moom damay sax dikkul liggéey ba faat waaye xam ngeen bi mu demee wan ko Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa daal di koy laaj alxuraan sëñ Mor Awa tontu mu daal di koy laaj ci xam-xam mu tontu. mu laaj ko ci fiq ak tawxiid ak tasawuf mu tontu mu xam ne kii am na lu mu amee mu daal di wax sëñ Massamba Fall Sagnère ne ko dalal ko bi mu ne ko dalal ko sëñ Massamba Fall Sagnère dañ dalal ko kenn liggéeyloo ko waaye benn bis dafa xëy gis mag ñëpp nekk ci tool yi liggéey mu daal ne waa man liggéeyal Serigne Touba mu man ni fii kon toog du sama cër daal di wax sëñ Massamba Fall Sagnère ne ko wutal ma lu ñuy daggee lu mel ni ay ngepp yooyu mu wutal ko ko booba tuubaa bu ñuy gor garab yi dañ daan ngor genn garab bàyyi fa ëkk ga waaye sëñ ma sam sëñ Mor Awa Ndiaye day dem ëkk gu nekk mu daal di koy gas rocc ëkk gi ba mu jet ba mu jeex mu daal di maasale suuf si daal di delluwaat bi mag ñi wàccee rek dañoo gis dëkk bi weex tàll gisuñu fi génn ëkk ñu daan ne ko def ñu ne gan gi fi ñëwoon démb sëñ Mor Awa Ndiaye moo ko def wax jooju nag di dem di dem di dem di dem ba àgg ci Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Tuba daal di koy woo daan na ko Mor dégg naa sa jëf ju réy ji nga def Mor damaa waxoon ne nan la dalal Mor mu ne ko la bayk mu ne ko sama borom xamal na ma ne yow doonoo ko nuy liggéeyloo sama boroom xamal na ma ne doonoo ko nuy liggéeyloo moo tax bërki démb bi may gës loolu dama wax ne am na loo xam ne ñun waruñu ko fooy quoi ndax ñii fi mu tolloon ci sëñ Tuubaa boo xoolee ku mel ni sëñ Babacar Ndiaye Thiergane sëñ Aliou Diouf Lambaye sëriñ Momar Mané Mbaye tey fu nekk nga dégg seen histoire nga xool ñii. bi nga waxee ne ma sëñ Mor Awa Ndiaye moo njëkk dem euh, sëñ Aliou Diouf Lambaye ak sëñ Babacar Ndiaye ci sëñ Touba dama loolu mën a nekkee waaye xoolal jàmbaar yi nga xam ne seen dund lépp dañ koo jeexaloon ci Cheikh ba Bamba te tey jii man ngaa dégg ñuy waxtaane yeneen mag tey man am na yeneen mag yoo xam ne soo ma doon ko waxtaan fii su ma doon waxtaan fii bas que mën a tas mais lan moo tax mënu ma ñu xam sunu mag ñi ni ñu xamee yeneen mag bi te fa mag ñoo ñu jaar fi la sunu ñi jaar toll woon ci sëñ Tuubaa foo xamante nii même bu fekkee ne sëñ Tuubaa ñëwut jamono sëñ Mor Awa Ndiaye moom dana koo xam ne bi mu jébbalu ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo ko xamal ne ko moor sama borom moom ma xamal ne doonoo ko nuy liggéeyloo kooku bu ñëwutuñ ci sëñ Tuubaa yi am na dara kon sëriñ sëñ Mor Awa Ndiaye yi toog ñoom bu fekkee ne sëñ Tuubaa ñëwut jamono it ñoom am na ñun bu sëñ Tuubaa ñëwutal jamono moom ñu torox ñun ñi ñëpp bu sëñ Tuubaa ñëwutal jamono ay yéefar ni doon dugg noog demam gii wolof nasaraanu te kon billahi ñëpp dem nii ren ñun ñëpp waaye xoolal jàmbar jooju mu delluwaat bu nu waxee ne la sëñ Mor Awa Ndiaye fekk na Serigne Touba Ndiarème Serigne Touba jox ko ndigal ne ko sanc ab dëkk mu sanc ab dëkk tudd ko Daara Xudus ñu koy wax Daaru Ndiaye tey sëñ Touba moo ko jox ndigal li mu dem fekk sëñ Touba gànnaar xoolal jamonoy gànnaar ni mu woon mag ñi bu ñaan dem gànnaar ñii benn dërëm la ñaan ñii benn këllu pepp la ñaan amee. ñi mu daa la ñu amee mu jaral leen doxe fii ba gànnaar te bu ñelaa sëñ Mor Awa Ndiaye dox na fii ba gànnaar nan nga ko mën a gisee ndax boobu war waay amut mboole mag ñi daan dem gànnaar ñëpp ñenn ñi ay gilim naan yor ñenn ñi dañ daan dox ak seenu tànk kon sëñ Mor Awa Ndiaye dox na dem gànnaar fekke fi sëñ Touba waaye yi mu ci loolu dem na ci yéen moom sëñ Mor Awa Ndiaye fekk fi sëñ kon buñ la misaalee sëñ Mor Awa Ndiaye diggante ak sëñ Touba sëñ Touba gërëm ko ba xamal ko ne ko yow sama borom dañoo boole ay mbir da sama borom dañoo boole ay mbir muy lan muy juróom-ñaar fukki at ak ñeent yi nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou ba dund moom la Serigne Mor Awa Ndiaye dund. nga xam ne xat wulidal xadimu man xat saraa shariatul muxtari ama sharaa summa madali rabbihi ama sumus wa umruhu aynun wa daaluka sumus wa qiila inna umruhu maalu milkal muna wa sarakal maalu mu bokk ak Serigne Touba loolu moo tax xoolal woykat ba ba muy woy sëñ Mor Awa Ndiaye loolu la wax shikrun illahi mi karim lay tàmbulee muslu ci moom seytaane noonu ba mat a yéem tey martial ka am ngërëm ka say xu Bamba jox nga néel def ko ni làmp bu taal mu faf di leeral waa bawal tey gindi mboolee ko xamul kookaa di sëriñ Mor Awa Ndiaye jàmbaar ja woon kër Mari Ndiaye te mës a tekki laxasaay ba fekki Bamba am ngërëm ma wax la ak ñëw jamonoom lu tuuti kon nga xam ne moom am nay ngëneel fa suñ borom ba fii nu ak fa nu jëm Bamba ko jiitoo fukki at dellu ko jiitoo fukki at ñoom ñaara bokk li muy at yu dund lii doy nay ngëneel moo ko sëñ ñoo bokk dundi at moo tax sëñ Tuubaa mooy chef mbokk yi sëñ Tuubaa mooy mooy mooy maire Seex Ahmadou Bamba ku ñëwul ci moom bokkoo bana li kulli man lahu wilaya kaw nii li xaaliqi li baraayal aaya Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Tuubaa kooku mooy meer wa huwa imaamul awliya wa huwa raisul asfiya wa waarisul lil anbiya wal atqiya qudama sëñ Tuubaa mooy njiiti wali yu gaa yu sell yépp ci moom la ñuy royee téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yonent yépp sëñ Tuubaa leen doon atqiya qudama buhrun li man yabqiina daa nuurun li taalibil hudaa laysa li jumlatil ada xama aw xayru man xama géej gu amul tefes mooy Cheikh Ahmadou Bamba gay na ci digg mbadig mooy Sëñ Tuubaa leer gi nga xam ne mooy juba taalibe yi mooy Sëñ Tuubaa xama aw xayru man xama fala taqis bihi ahad wabki bihi rida samat takun bihi bila nafat ka sax bi taa bu la dara dara dara jàpp ba ngay dendale Sëñ Tuubaa kenn Sëñ mooy meer Sëñ Tuubaa képp Sëñ Tuubaa rek Sëñ Tuubaa dong yàlla dendali ko kenn moom Sëñ Tuubaa xoolal ku ñuy wax Cheikh Ahmadou Diaw Baxa bi mu jébbalu ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko Ahmadou Diaw nekkal sama jaw man may sa saman mu ne Ahmadou Diaw jaw bin wa say oxu sama wala arda taxta jaw bi laa taxta sama te egg na ci wax sëriñ Tuubaa de sëñ Tuubaa mooy kenn koo xam ne amul ab dendaal kenn du ko dendale kenn mu tax tey jii ñu nekk mënuñu fee xam sëñ Tuubaa waaye xat yi mu ko mën naa laa sax san si waakumoo wa saaka xaddan ëllëg sa ñaa alamul baraaya yowmal xiyaam bu nit ak jinne ak malayka teewee la ñuy xam kan mooy sëñ Tuubaa moo tax ku ñuy wax sëñ Demba Kebe sëñ Tuubaa da ko mas a wax ne ko Demba Kebe mu ne ko Mbakke mu ne ko am sëriñ bu mat sëriñ moo xam la nga xam ko jar na lu ne sëñ du sëñ Demba Kebe ne ko alhamdulilahi Mbakke bañ la amee xam la nga xam nu sëñ Tuubaa ne ko Demba Kebe ne ko Mbakke mu ne ko yomal xiyam gën jëm ànd fa ku nu rus moo gën a mu ñu rus la sëñ Demba Kebe ne ko alhamdulilahi Mbakke ban ànd ak yow mënu rus sëñ Tuubaa ne ko dem ba Kébé mu ne ko Mbakke mu ne ko yow mal xiyaam nga jëm bu ñu àggee ca waxtu ñu war a taxañ dënd ba bu ko yàlla yee taxañ bépp roogu aju ci manta yaakaar ma danaa la woon sa këru àjjana doo ko yàkkamti danaa la woon sa këru àjjana te doo ko yàkkamti am benn nar bu yuuxu sëñ Tuubaa ne ko ma ko waaye dama fa fekk loolu la waxoon sëñ ma jëmm si la sëñ ma jëmm si la day xel li sëñ Tuba di jàpp bi sëñ Tuba jàpp ba ne ashadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ne ko ma mu ne ko yowmal xiyaam ngeen jëm yowma yowmal xiyaam ngeen jëm bu yàlla teewee rasulullahi teew saalixe ne xob bu zamanee borom jamono yëpp teew man képp maa sëñ ne ñokket ne suñu borom lépp loo ma digal def naa ko mosuma def looy tere jéggalal jaam ñëpp ku dul mën sañoo ko kan ngeen mas a dégg ku dul sëñ Tuubaa ko ko amul ko mu kii kan ngeen ko mas a dégg mais Ahmadou moo fi nekk. ah ñun nag xam nga gànna mi si la maxtaar la ñuy roy nag bu nu bu nu naree ragal ndax sëñ Tuubaa mooy seef sëñ Tuubaa ah gànna mi si la maxtaar man su ma demee bay tudd gànna mi si la tey di di di ragal mën naa koo bàyyi di doon doon am Seex Njaay waxtaan waxtaane sëñ Tuubaa dong mais sëñ Tuubaa mooy seef naa la wax fa mu àgg ci boromam la kenn mës a àgg li mu jëfal boromam subhaanahu wa taala kenn mësu ko ko jëfal alxuraan dañ koy jàng xadis dañ koy jàng yeneen taalif dañ koy jàng mais fi Sëriñ Tuubaa egg la kenn àggul kon nan bàyyi xel nan bàyyi xel loolu ci Sëriñ xam ne Sëriñ Tuubaa mii daal li mu defal war nañ koo fayee leneen lu dul tappale wala di geestu déedéet gis nga Sëriñ sëñ Touba li mu boppam mooy li wér mooy li leer li mu waxal boppam mooy li wér mooy li leer kon nun taalibe sëñ Touba yi war nañoo xam ne daal ku am ku kenn amul daal na war a mel nu kenn melut kon noo ngi leen di sant bu baax noo ngi leen di gërëm xam naa Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine comme que nun duñu waxtaan ba jóg te tudduñu ko léegi bu ma nee Sëñ Tuubaa mooy def ku kenn mbokk yi fan ngeen mës a gis koo xam ne du julli du woor natul asak ajut màkka te ku ko di nga dem sa war sëñ Ahmadou Fa Jama Ñang nee na damaa dem ci soxna may mun a Kubra soxna may mun a moo ne ma man da ci sëñ Tuubaa jóge léegi sëñ Tuubaa moom ma wax ne ma sawara day léegi li fi jóge di jooy ndax alxuraan moo wax ne la am laan na jahannama min al jinnati wa nas ajmain sawara ñëw ci Sëñ Tuubaa daan ne ko yàlla day moo wax ne danaa duy sawara ba mu fees dell ci ak ay nit ak jinne waaye yow Ahmadou Bamba xam naa ne nekk gii nga fi nekk daal tax na ba du ma fees nee di jooy nee na ne dox juróom-ñaari jéego ma ne ko mu ñëw mu ne ma ni nga fees dell ci ko wax Ibrahima Fall nuru noonu ak waa këram kon man shakka fii Ibrahima Fall wa fii tariqihi l kamal in lam yatub li sil jalal yura azaba qatlaka te kooku mooy ko xam ne chikrun illahi la sax yendoo liggéey joxe ko ci lii la jaar ba ñu xëy baddil ko Cheikh Ibra Fall amaana waa ju ko jeex ci téere mbaa jamono allahu akbar yàlla noppi na Cheikh Ibra Fall ëllëg la ñuy xam mbiram bur yàlla moo xarare wallahu yafalu ma yasaau Cheikh Ibra Fall parce que ma la lam nga ca kaw timbaaga kenn xamu ko baagaa di Cheikh Bamba lam ngaay lamb ci Ibra Fall boobu bu sëñ moo tax karaamaaki xar baax ak wilaaya ki mbóoti xol ku leen masa am sël boo ku dul yow Sëriñ Tuubaa ku dul yow dadaa sël boo ko dëkkoo ko rekk ngëm di alkee ka yàqante ka fa décoré Tuubaa nga yor italam wa rahmatallahi yàlla wet li ngay muñ te man koo faj amum kem Sëriñ Tuubaa ku lay suuru def laa réeré boo gesu woon mu dee ndamul ub nga lambi soo daan ak bayaa diini ak Tuubaa gouverneur yi ak soldat sa xam nan la baafal yi commandant ak kàngam xam nan la bis Tuubaa Kajoor ak Bawal Siin Saalum ak Fuuta ak Jolof ci say may la ñuy baawaane yaay géej wër Touba ku ne tëkkale ko xaw su moo réere ay mbiram ne moo tëdd ba xob ba xaw su si leer yi wër Touba ku daal woote tey kuy kuy lu taalam ba fay na tey sa taal baa ngi doon lay jolli fay tin ba dem Touba ngirum tar bi yaa ngi xew ci saw jant yaa ko def ba ñëpp aajo yaa tax nit ku ñun mos ko fi Touba ku ci bañ a ànd ak Bamba xam naa da koo xamul ndax gumba gisut leeru jant yéem naa Sëriñ Touba kamaalug rasulullahi mooy mat ga duutul saw matuk sa yidir kaw nay ni leen jox Sëriñ Touba gi ñoon naa na yaay wutaatu njool makka ci defar ku koy sikki sàkkaar yi la jagleeg Serigne Touba Ahmadou Mbacké rek donc asalaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey